téléspectateurs yu M7 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ñu ngi fii ba léegi ci dëkk bu sell bi di Touba ci 129e édition euh, bu màggal bi ñu ngi fii nag ci daaray kaamil bi nga xamante nag Serigne Touba Cheikh Abdoul moo ko taxawaloon ñu ngi fii nag ak ki nga xamante ne moo di Serigne Ousseynou Diatara nekk coordonnateur bu daaray kaamil sëñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo bu baax a baax di la bàyyi nga nuyoo ko mbokk yi ñuy seetaan euh, waaleykum salaam warahmatullah mbokk yi ñu leen nuyu leen ziar bu baax di ànd ak mbégte seen teewaay fii ci barab biir Daaray Kaamil di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci li ngeen tax a jóg muy leeral Daaray Kaamil incha allah. Eh, sëriñ bi liñ bëggoon a xam rek Daaray Kaamil kañ la ko sëriñ Abdul Ahad Mbacke daal di sos eh, ak lan moo waraloon mu sos ko ak ba jamono ji li nga xamante nag moo fi nekk ci ay kaamil ak ay xasida ak yeneen bërëb yi nga xamante nag mu ngi fi lépp jëm ci wàllum sàkku xam-xam. waaw Daaray Kamil Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko sos ci atum 1977 la ñu ubbi barab bi lépp lu jëm ci xeetu xam-xam yi nga xamante ne Cheikhul Khadim def na ko wala ci xaside yi mi ngi fi léegi nag da koo defoon ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi lépp lu jëm ci alxuraanul karim ñi nga xamante ne njabootu Cheikhul Khadim gi sedd yeeg dongo yi ñoo ko bind mi ngi foofu beneen xaaj bi nekk lu jëm ci wàllum xaside yi nga xamante ne Serigne Touba def na ko mi ngi fi ak lépp lu jëm ci téere xam-xam yi ak témoignage mi ngi foofu ñetteelu xaaj bi lépp lu jëm ci wàllum maanaam euh, xeetu xam-xam yi nga xamante ne mooy jugee bitim réew dañ naan culture générale xam-xam yooyu yëpp yu si baree baree bari nit ko war koo xam Cheikh Abdoulaye woon na ko bitim réew pour nit ñi bañ a génn xam yi ñu xam loo ci dëkk bi loolu lépp ay téere yu am solo yoo xamante ni day jàngale sa diine li muy jàngale nga am xarañteef ci yenn xam yi nga xamante ne day jàngale métier am na ci ay euh, téere yu am solo yoo xam ñu ngi fi am na fi benn salle bu ñuy wax salle de lecture saal boo xamante ni lépp lu jëm ci wàllu ñuy gëstu ak ñi nga xamante ne téere yi ñor na leen ñu bëgg koo xam bu ñëwee ci saal boobu lépp lu jëm ci wàllu wàllu woowu danañ ko am ci ni mu ko bëggee. Hmm. sëñ bi fii nii nag euh, yan xeetu ñi nga xamante ne ginnaaw waa Sénégal ñi nga xam dañuy bàyyeekoo bitim réew ñan ñoo fi faral di gën a ñëw di fi gëstu si ci li nga xamante ne moo xam mbindum alxuraan la mbindum loxo yi wala mbind ki xamante ne moo di Serigne Touba Cheikhul Khadim ak comme ni nga ko waxee wala yenn archive mu jëm ci yoonu murit ak ci diine waaw xeetu façon ni ñu fi ñëw bari nañ lool nationalité yi bari dañu fi ñëw ci ay américains wara ay européens. wala jëm ci asiatique yi ñu bëree bari dañ fiy ñëw di gëstu di xool barab bi di visiter euh, kilifa yu bari yoo xam ne ñu ñëw Touba di siyaare si xalifa bi ñu si bari xalifa bi di leen di digal pour ñu mën ñu ñëw seet si bibliothèque bi ngir ñu xam dëgg-dëgg maanaam liggéey Sëriñ Tuubaa ak xam-xam kon bëri nañu ay nationalité yoo xam ne ñu ñëw di gëstu si di jëriñ si téere yi ñu bëree baree bëri ñu ngi fii ñu ngi fi ñëw bu weesoo loolu mbind mi nga xamante nag dañ koy bind ci langue arabe euh, am na ay tradition yu fi am moo xam ci français wala ci anglais loolu naka lañ ko naka lañ ko sosoo naka lañ ko sosee ak biñ ko sosee ba léegi ñaata exemplaire lañ fi jot a moo xam ci langue français ak ak anglais. waaw bëri ay téere yu bari boroom xam-xam yi macha allah bind nañ ci euh, am ñoo xam dañuy bind ci seexul xaddim ci ay jaar-jaaram ci langue arabe francais anglais ak espagnol ba italien xeetu xam-xam yooyu yëpp ñu ngi fi. am ñoo xamante ni dañuy jël euh, mbindum sëñ Tuubaa di ko firi wala ñu koy waa traduiraat ci wàllum langue yooyu kon bëri na ay langues yu bari yoo xamante ni def nañ ko ci tradition ci faran ci ci ci Seexul Xadim ci ay téeram yoo xamante def na ko ci arab kon loolu yëngatu nañ ci yëngatu boo xamante ni ñu baree baree bari eh, gis nañ ko te ku ñu barab di nga ko gis incha allah ci wàllu wàllum xasida yi dafa am xasida yi nga xamante nag ñëpp ñoo koy yër wala boog dafa am xasida yi nga xamante dañ koy réserver ñi nga xamante nag ñooy sang si maanaam bokk ci waa kër Serigne Touba Cheikhul Khadim buñ ko mën a waxee ci ak ci ak ay ay sëtam wala ay ñi nga xamante nag ñoo ñoo nekk bokk ci njabootam. waaw xasida yi moom daanaka ñëpp ci bokk yam yi nga xamante ne ñii dañ koy xool yi di ñu ko xool moom amu fi. waaye am na yoo xamante ni moom euh, yu ñu digle la pour ñu jàng ko am yoo xam ne yu ñu digle la dañ ko jàng ndax euh, am na ci yoo xamante ni maanaam euh, niveau doomu aadama bi dafa tollagut ba mën koo liir ba mën koo xam ba mën koo jàng am na yoo xamante nag bu fekkente niveau bi àgg na fa nag ñu génne ko jox la ko jàng ci waaye du question ne li fi nekk rek dañ koy jël di ko jàng ndax am na ci ku fu ne na tolluwaayam wala ku ne am na jàngoroom jooba ko faj ku ne dañuy xool médicament ba nga xamante ne moo lay faj rek ñu jox la comprimé boobu nga xamante ne moo lay faj waaye du question ne nit ki day ñëw rek maanaam xool xasida bu ko neex rek jël jàng ah, bala nga koo jël jàng war ngaa xoolal mooy sa jàngoro ju nekk ci sa yaram ñu xam ko bu ko defee ñu wan la xasida bi nga xamante ne mooy fa jàngoro jooju waaye boo jëlee xasida boo xamante ni man du faj jàngoro ji day indi yeneen jàngoro joo xamante ni day gën a doy waar sëriñ bi bu weesoo loolu rek li ñuy tëjee jotaay bi mooy war may bërëb bi ndaxte képp xamoon na ne sëriñ Abdou Lahad taxawaay bu mu amoon ci diwaan bu Touba donc bu sañcee li nga xamante ak moo di daaray kaamil day aajowoo ay war ma ñu fàttali rek mbokk yi ñu fiy ñëw wala boog ñu fi bëgg a ñëw yan war ma ak yan teggin la dugge ci biir barab bi. waaw war may barab bi moom mooy war may dëkk bi rek maanaam war may diini islaam képp ku fi ñëw ànd ak maanaam euh, l'islam santaane ak euh, li nga xamante ne moom la bëgg ci ab jullit mel ko ci comportement bu yiw comportement bu baax boo xamante ku la xool xam ne yaa ngi pratiquer sa diini euh, nga ànd ak laab ànd ak set ndax barabu siyaare la barabu barkeelu la barabu xe lépp lu yëpp ci wàllu maanaam barke bi bir, ci biir kon ku fi ñëw rek nga ànd ak teggin ànd ak jàmm ak andak ak teggin ànd ak yiw sol lu yiw loo xam lu jot la ndax loolu sëñ bi mi ngi koy santaan di ko ci jamono yi jàll kon nit ku kuy kuy ñëw ci barab bi rek fexeel ba lépp lu jëm say awra mu bañ a feeñ te ànd ak dal ànd ak teg ànd ak tey. Euh, sëriñ Ousseynou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi rek xanaa nga tàggoog mbokk yi ñu doon seetaan fi nga xamante nag moo di M7 TV. waaw xanaa di leen sant di leen ñaanal yàlla suñu borom màggal gi yàlla daf ci taw feex ci xéewal yu bare bare bari te lépp lañ fi ñaan suñu borom nangu ko ñu fekkee ko ay réew yàlla di leen defal yéen waa MTV seen seen seen bi yàlla barkeel ko ba lépp lu ngeen ci soob suñu borom defal leen ko ci ba màggal gii ñëwaat mu fi ngeen fekk mu mun yokk lool ci wàkk Seexul Xadiim wasalaamaaleykum jaajëfal bu baax a baax moom Serigne Ousseynou Diatara nekk coordonnateur fii ci daaray Kamil bi nga xamante nag comme ni ñu ko waxee ki nga xamante nag moo ko sosoon di Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak leeral yi nga xamante nag kii la di Serigne Ousseynou daal dina ko def ci bërëb bu sell bi nga xamante nag lépp luñ fi def mooy ay alxuraanu karim ak bindu Serigne Touba Cheikhul Khadim di ay xasida ak gër yëpp xeetu xam-xam ba nga xam ne dafa jëm ci wàllum lislaam téere yi nag am ñu ci traduire lu jëm ci xasida yi ci ay langue français Eh, espagnol ak anglais ak italien comme moom ni mu ko waxee ak yeneen xeetu xam-xam da nga xamante ne borom xam-xam yi bind nañ ko ba pare firi ko ci yooyu la lang di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ñu doon topp di jaajëfal bu baax a baax ki la di ba Alioune Badara Thiam ba dara Ndiaye bi nekkoon ci caméra bi ak ki nga xamante ne moo di Modou Diouf.